xam ngeen ne Jamra mësul taxaw fenn di woote ne mooy directeur de la conscience des Sénégalais wala mooy euh, le gendarme de la morale yàpp Sénégalais yi sax weesuwul ngay dëkkal Jamra foofu nga xam ne dëkku fa ak ku xam Sénégalais ci faydaam soo attachement à la liberté ku jóg naan yaa koy tànnal lu mu war a xool ak lu mu warul a xool ak lu mu war a yàpp Sénégalais kon loolu taxu ñoo ñun ay consommateurs lañu ay pères de famille nous avons des droits à défendre et des enfants à protéger kon boo gisee weer yële passé suñu jàppanteeg maîtresse d'un homme marié loolu rek la ils sont libre de faire leur production audiovisuelle mais bu dérive amee pas pour les adultes parce que les adultes sont majeurs et vaccinés waaye ñu di ko dawar à des heures de grande écoute nga toog sa doom ak sa jarbaat gis wax ju ñàkk jom gu day ni sama lii maa ko moom ku ma neex laa koy jox di nga bëgg sa doom dégg Euh, ñun suñu suñu euh, taxawaay mooy rek protéger tout tànk yi alors léegi nag euh, ndaw si defe naa elle est très mal conseillée bugguma sax tudd turam cam borom rangu maan boobu la rangu maan xaw ma rangu wu man elle est très mal conseil walla boog amul ay mbokk yu ko jegee yu ko mën a yàdd conseil elle est sur une pente très dangereuse te dafa xamul xamul nu dëkk di doxe xamul sartu réew maa ngi ko dégg mu naan réseaux sociaux yi kenn moomu ko et puis euh, ana lu fi jar a wax taat nu mu yombee Sénégal ngeen jéggal ma sax ci bésu àjjuma yi ak yeneen yu ñaaw erreur moo di autant euh, ñun ñi ñëpp suñu jamono maam yeeg bàyyi xam nga jamono boobu pour euh, résoudre les conflits communautaire chef de village bi dañ daan woote si taatu sa penc ma Senghor di ko wax l'arbre à palabre dañ daan waxtaane problème mu penc mi waaye nu sommes au vingt-et-unième penc mi dafa moderniser mooy dafa toxu vers les penc virtuels Facebook penc la. YouTube YouTube ma ñëw rek YouTube non non moom daf ko tëj nee na ab nga abonné pour mën ko duggu alors la may dem di ko ñaan abonnement ndax mën naa dugg. Euh, penc la Facebook penc la kon agression yii muy def pornographie verbale bi muy def striptease bi muy def exhibitionnisme sexuel futti dënn beeg ween yi ci penc la ko defee loolu waral nag ñun on l'a pris au mot parce que gis naa mooy lay naan pourtant ma ndey ku fonk sama waay jur laa sama yaay rek laa am waxoo dëgg ndax ku fonk sa ndey doo toroxal jigéen ku fonk sa ndey doo dévaloriser l'image de la femme doo dégrader l'image de la femme ndax sa yaay jigéen la te moom lii muy def yéen jigéen yi la jëkk agressé parce que yéen ak col yu yiw yi ngeen def jomma ngeen taxaw ci diggu penc wane seen i ween ak seen dënn ak seeni i silip moom loolu lay def par conséquent am na bërk démb ñaar yi ibaadu lañu juróom yi c'est d'autres citoyennes sénégalaises saisir Jamra au téléphone wax bay jooy ndeysaan ndax amee naxar ni une femme comme elle di def yu ñaaw yi mu metti leen alors kon nag ci penc la ko defee ndax virtuel yooyu penc ba tax na ñun jambra nous sommes fiers comme vous professionnels de la communication d'appartenir à un pays où la constitution consacre la liberté d'expression nous sommes fiers mais en même temps nous nous arc-boutons sur ce credo sacré largement partagé par toutes les démocraties du monde et qui dit que votre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres libre na ci def lu ko neex na tëju ca néegam futteeku def lu ko neex na woote benn soirée deux cent mille comme elle l'a fait wala un million suñu yoon new ci d'ailleurs sax entre gis nga affiche bi à droite lu mu wax nee na le lieu est tenu strictement privé xanaa la ngeen fay def du jàmm loolu suñu yoon new ci waaye ñun la ñuy metti metti leen même boo leen ko waxul parce que vous avez un devoir de neutralité metti ñeneen mooy taxaw ci penc mi di toroxal jigéen loolu moo ñu met alors looloo waral nag lii du gulet du xam ngeen ne coow li amoon na fi ak naataangoom bi ñuy wax euh, des major 2016 la des major moo tane kii elle ne l'avait pas fait intentionnellement dafa newoon ci benn groupe privé boo xam ne Snapchat la benn membre groupe bi extraire benn vidéo obscène balancé ko ci euh, Facebook elle a eu tous ces problèmes ba plainte ba demee procureur woo ko lan la wax waaw man sama groupe privé rek laa ko defoon dafa am ku ko génne euh, balancé ko dans un euh, site public lu demee ni euh, nu mu tuddati WhatsApp ak ak machin Facebook procureur ne ko man toppatoo ma yooyu gis nañu ne daal y a une agression aux bonnes mœurs nga heurté sensibilité des millions de gens ñooñu lenn ci ñoom ñoo porté plainte man je suis obligé appliquer li code pénal wax lan la code pénal wax. article 138 code pénal condamné na toute forme n'est-ce pas d'outrage public la wax waxul privé de outrage public te euh, Facebook Instagram penc public la donc def na fa outrage public aux bonnes procureur ne ko ñaareel ba l'article euh, bi may wax sànq 318 la waaye 324 condamné na tout forme d' attentat à or Bess Major dafa demoon ci show of the year fii ci stade bi am na ay tout tànk mineurs yu fa newoon procureur ne ko heurté nga des mineurs kon nag attentat public n'est-ce pas euh, à ñu ne ko ràpp ci kaso bi alors pendant cinq jours bon mes amis ñoom in euh, Fou Malade moo tax toujours damay naan bu leen ko Fou Malade suma xarit la c'est un malin dox ci tànku jàmm ba ñu teggi suñu loxo Dess Major génn nag prison li tax ma ne maa ngi koy félicité dafa jógee prison sol dàllam seet si ma mu ngi may dégg ci télé yi lay waxee dana ko suivre jokkoon nañu bu yàgg téléphone mu di ma gërëm ne ma tonton Gueye conseil yi nga ma joxoon amal na ma njëriñ alors ba mu ñëwee lu ma wax nee ma man xaw ma woon ne lii bu ma ko defee dana heurter autant de gens naka laa mën a def pour jéggalu Dess Major de son vrai nom Ramatoulaye Diallo ma ko ñun ummatul islamiya bi nga tooñ ak nit ñu yiw yi ah ma ne ko léegi booy jéggulu mënoo wër 16 millions d'habitants di jéggulu këroo kër c'est impossible man li ma la suggéré comme que yaama laaj na nga def une déclaration publique nga jéggulu mu ne naka lay jéggaloo ma ne ko comme que jullit nga sartu lislaamu jéggal ñett la benn bi nanga nga reconnaître ne yaa tooñ ñaareel ba na nga jéggulu ñetteel ba nag nga jël engagement ne doo ko defaat mu ne ma d'accord naa moom des major ma jox ko këyit ak bic mu mu mu wax tooñ gi mu tooñ yëpp ak jéggalu dal di signé ma ne ko déedéet am nga carte d'identité mu ne waaw ma ne ko génnal sa carte d'identité nga bind numéro carte d'identité bi ci sa suufu signature pour authentifier ne yaa ko signé mu def lool ma ne ko léegi danaa la dimbali woo presse en ligne bi ñu tasaare ko ma yónnee ko leeral yónnee ko Dakar ak jot ko ba mu ngi si jàmmam kon kenn déggatul DES major 2016 ba léegi muy agressé nit ñi avec des postures obscènes et pornographiques nee na ma nag danaa dellu siwaat sur scène waaye bi yoon tonton na sa xel dal je vais changer kooku moo ne kii kii dafa ne kenn mënalu ma dara lu ma neex lay def moo tax na ñun on est obligé defanteeg moom ci yoon ce qu'on a décidé conférence de presse bi laa doon xaar mu jeex fi mu ne dañu war a am daje parce que Jamra a reçu un soutien de taille dañ koy attaque ak doole parce que nee na moo tey soutien de taille bi mooy le comité de defence des valeurs morales bi nga xam ne c'est présidé euh, co-présidé par Adama Mboup et Serigne euh, Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall mooy jarbaatu sëñ Mountakha Mbacké xalifa général de mourides dizaine d'organisations ñoo nekk ci kuréel boobu comité de défense des valeurs morales te moom itam mu nekk la l'arrière petit-fils de Mame Cheikh Ibra Fall nee na Jamra nous de tout avec vous kon on sera 10 plus waa Mbañ Gàcc qui sont 24 ak 10 donc 34 signataires ñoo fas yéene déposer lundi incha allah sur la table de la brigade de mœurs et sur la table de Sëñ Bassirou Gueye le procureur de la République porte plainte contre Rangu ci exhibitionnisme bi muy def ci penc mi di agresser nit ñi ba pare naan maa pour outrage aux bonnes mœurs et attentat à la pudeur incha allah bu boobaa nag procureur def liggéeyam lu procureur dogal rek ñun ànd nañ